Euh, tonton gisee ñu gis ne que kii di euh, Wally Seck moom na mi ngi am spectacle bu mag bu muy def euh, le 12 juin fële ci Grand Théâtre donc ginnaaw bi papaam làqoo yàlla na suuf oyof ci kawam yàlla xare ko aljana yow mi nga xamante ni xam nga Wally cheminé nga ak papam moom tamit am na ay conseils yoo ko yàgg jox tey soo ko doon jox conseil ban conseil lay doon waaw d'abord li nga xamante ni moom lay gis ci Wally je sais que xale la mais une certaine maturité et que euh, papam ñun dinañ ko Joy ba nëgëm mais moom en en dehors de Joy, bi dafa am loo xamante ni daf ko war muy défi défi bi mooy lan parce que su ne tey Wally coono tax c'est grâce à coono d'abord moom moo ko jur moo ko inspiré ba mu nekk aussi euh, woykat am chance aussi euh, nek dans des dispositions yo xamante ni meloon ni musiciens yi nga xamante ni dañu xoos bu pop voilà donc mom euh, vraiment euh, il a été dans des conditions yo xamante ni permettre na ko pour mu nek fi mu mais aussi comme je dis rek euh, il faut que mu xam ni la coon gàddu woon moom dina ko gàddu boole ko mom ci bopam li mu gàddu donc responsabilité

amna lu ci yok moy aujourd'hui c'est le reflet de son papa mm. donc mais na départ woon ba non seulement ne ko continuer mais ne sóoraale li fi déf, def li fi me liggéey ak li nga xamante ni alors moom moo nekkoon ay potentialité yu papa parce que aujourd'hui c'est l'héritier légitime de Thione Seck D'accord, donc si waxee ne bu ñu nee coon euh, bu ñu nee waali donc papam est ce que loolu war na frein pour euh, carrière non bien au contraire bien au contraire euh, au contraire il koy le motiver parce que euh, sa mission aujourd'hui c'est non seulement d'être wali, mais en dehors d'être wali, rek day a encore euh, image papam da koy

xamante vraiment euh, na ay ambition ambition là, ce n'est pas simplement pour le public sénégalais et je crois que moom il a envie le public sénégalais yóbbu beaucoup au-delà de nos frontières de manière efficiente et mu ngi ci biir chemin boobu daal euh, comme ni ma koy wax rek euh, papaam daal liggéey na liggéeyal na itam donc euh, na topp ci loolu di ko sóoraale toujours. ok euh, donc euh, Youssou Ndour euh, annoncé li nga xamanteni ni pause musicale euh, donc ñenn ñi sax nee nañu Youssou Ndour tay bu démé ba pause Wally war na mën jël relève bi ndax à part Youssou Wally mo fi nek <laughs> yow ban analyse nga am ci loolu. non je ne pense pas parce que xam je crois que gis nga man je ne peux du jël ñaari tur yooyu yëpp. Mhm. di len méngale di leen teg. Mhm. Youssou c'est Youssou. Mmh. Youssou c'est une icône c'est une icône mondiale mondialement reconnue mmh. artistes yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ñi reconnaître sur le plan international ni néew néo néo je crois que avec le temps parce que je peux on ne peut pas parler de quelqu'un qui a 50 ans de carrière mmh. taxaw ci seen bu nekk ci l'eau, def lu nekk ci de l'eau, université yu nekk ñi docteur honoris causa et cause pourquoi parce que musique fekk ci musique mhm. un chef d'entreprise musique ko di jël ko 2009 le la carrière mhm. euh, soit 11 ans ou 12 ans à peine je crois que euh, c'est même pas élégant c'est même pas élégant je crois que ça Wally l'a compris parce que moom ni ni peut-être ñoom ñooy jël turam di ko méngaleeg turu Youssou Ndour euh, et mais moom il a bien compris que ni il est il est encore à plus de quarante ans de retard par rapport à à mhm. ak ak Youssou Ndour et yow Wally am na fa ay naataango ay ñoo xamante ni xëy peut-être le monde nañ koo méngaleeg ñooñu mhm. voilà mais du ko mel ni Youssou euh, musique aussi on ne peut pas parler de relève. Mhm. parce que style yi bari, euh, feeling yi bëri. Mhm. mu nekk une diversité culturelle parce que li, waa def ci mbalax soo demee Yoro Ndiaye mom lay def ci acoustique. Mhm. nga dem ci dans d'autres domaines keneen loolu l'ol l'ol l'ol loolu lay def. dans la musique euh, wóor bi mënoo ci génne Viviane pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas Nitoudougou. Mm. Donc, musique du problème relève. Voilà. Et quoi que c'est une richesse. Bon, euh, diversité bi dis euh, ñi mën ko mën nañ partager mais on ne peut pas parler de roi ou de prince et cetera je crois que yooyu mm-hmm. euh, waxu kii la rek waxu fans là, mm. mais kooku du du waxu nit koo xamante ni mm. au moins c'est un professionnel du